fi mu toll nii mën na la ñëpp nee na da ngaa leer. non weeru ma ne. am neex na. non dégg nga mooy yow ndam boobu fàtte nañ ko sax. sama teewoo man ak Jordan laa soxla mu ngi nee man Jordan man mu ngi Jordan. mooy bu ma ko joxee barke Serigne Touba dama koy duma daan ko. baat li nga ñëw stade bi yëpp jóg fan ak yow nga daan moo tax nga bëgg a def daa tax ñuy wax. Jordan bu ma ko joxee barke Serigne Touba Mbacke ma daan ko maa ko mën maa ko ëpp dooge maa ko ëpp mboogoo maa ko ëpp jàppage man doomu séeréer bu ma jógee séeréer yëpp jóg Jordan nuyu naa loone waaw maa ci kawam. tey nga ñëw ci bi lan ma fa sa teewaay. sama rakk mooy bëre mooy armée. Ah, waaw ma ñëw. moo tax ñu lay gëj a gis. duñ la gis Jordan ci yu bari Jordan kenn ko gis ci yu bari bari. waaw damaa ci combat moo tax. te instant yii combat bi xam dafa am ay yàqu-yàqu quoi. doomu daangu taxawoon na. mais promoteur bi bon nee na mënatu ko moo waral ma ñëw pour leeral loolu quoi. kon fi mu toll nii euh, contrat doxatul sa digganteeg moo géet contrat doxatul sa digganteeg doomu daam. waaw loolu moom am ñoom ñoo ko wax quoi ñoo ko benn journal laa ma wax ko ñëpp dégg noonu nañ ko. mais est woo nañ la wax la ci lu leer. non en tout cas loolu lañ wax sama manager loolu lañ dégg ñëpp daal loolu lañ dégg daal nee nañ libéré nañu daal. mais mais mais mais bu weesoo bu weesoo loolu fi mu toll sa xel ci lu mu nekk parce que gis nañ combinaison yu ci bëri commencé naa tas. waaw Gris a bëre ak man. doon ah Gris 2 daan naa faas ñetti magam kon bu ñëwee mën naa ko may sens ah, Franc yàgg na maa laaj amul combat boobu ba léegi amuñu bu ñëwee wax ñëpp ay xale yu saf nga ma laaj fi mu toll ay xale comme ñoom man di dama jaawale ak mag. gis kii kii di Ibou Ndiaye léegi. nee na yow moom combat la. kii Ibou Ndiaye. Ibou Ndiaye au bëri. waaw lamb booy yi daal léegi nii bu ñu ñëwee may kontaan naa ci yow. gars yi ñoo far bëgg. boole lii boole nag Ibou Ndiaye. lu waay waxoon na ca dellu. barki Serigne Touba Mbacke Jordan dama ko bëgg. mais moom nee na pare na pour bëre ak yow. man. nee na pare na pour bëre man. ah wax la moom mu ngi lay na pour bëre man. moo ko wax pour bëre may neexal la nu ma lay neexal nu ma lay neexal waaw kon demal boo mun neexal demal non non mais yéen ñaar da ngeen tolloo déguma champion nga boo mun neexal demal waaw déguma champion nga neexal ba jàll ma yow ñeme nga maa jóg yow kan mais kii champion nga ndaanaan nga waaw mais ñu ñoo mën a mayante xaalis barki Serigne Touba Mbacke. mais Jordan pare na pour ñu Jordan pare na pour ñu bëre man ak moom. dinaa bëre keneen ku dul moom man nekk ma fi xaar ay Jean wala Paul loolu moo gën a ma bëre ak moom léegi barki Serigne Touba Mbacke man man ay yooyu de man xale yi baax da nga si Jordan daanaan la champion la day dóor day xeex day bëre te instant bi ñu ñoo mën a mayante suñu biir xaalis gars yi dañ ko fee bàyyi kenn nangu koo jëg na ma jëg non amoon naa combat na a bëri mais promoteur bi moo jékki-jékki waxul lu leer moo tax ma loolu sama avance keneen ku ma lamb boole nag ma la wax léegi man damay liggéey sama combat bi passé kon Pape Sarr dina dox loolu na pare naa bi dara daax danga may neexal de. danga may feccal <laughs>